salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk julli yi mbokk taalibe yi ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di am mbégte lool ci ñëw teew ci barab bii di barab yu tedd di barab bu màgg tey jii di bis boo xam ne dañ fàttaliku sunu jàmbaar ja Cheikh Babacar Sadikh Ndir ñu mën wax ne suuf su tedd yi si fi tëdd barab yi nag day barab yu màgg di barab yoo xam ne ni barabu cosaan la boo xam ne nit ñi dañuy bàyyi ko ci barab yu baree baree bari di ñëw di siyaare waaye rawatina waxtu boo xamee ne ni bis bii nga xam ne dañ koo tànn di ñëw di fi def siyaar mbokk yi bàyyi ko fu nekk ci barab ahlu ndiireen ahlu kunta fu ñëw ngir saafante ak mbokk yi moo tax nga leen a gis ñëw ci barab yi di barab ñaan di barab barkeel nga xam ne Mandiru Faboye mi sañ ci dëkk bi wax nañ ne bi mu ñëw ci dëkk bi booba fii ab gent la waaye tegtal bu am lu maamam doon wër ak maanaam euh, barab boo xam ne nii wax nañ ne ay malaaka dañ fay julli te ay maamam dañ ko daa wër moo tax bi mu ñëwee fii wax nañ ne fii booba ak sidee moo fi nekkan boobu it bu ñëwee fi la nawet waaye booba xam ngeen ne jamono la jamono la joo xam ne jamono ju jafe la pour sanc waaye am néegub càkkaar rek la aman wax nañ ne it booba yàlla si bu daa taw wala aw naaj rëdd yu mu day mel ni téere yi di tooy kenn du tooy ku nekk ci biir day mel ni daal ku nekk sa kër nga xam ne aw naaj du laal bu dee taw yi taw bi nga xëy bàyyi koo ne it ci barab bii lañ ko denc barab bi it firnde yu leer lañ ci am ci ne barab bu leer la barab bu barkeel la barab bu ñaanuwaay la. wax nañ ne sax xam nga ne xare bi xewoon ci diggante ba Birima Farba Cëbbu ak ca Yaasin Jëng bi ñu wëree sëriñ si nekk ci réew yëpp ngir ñaanlu dañ leen waxam ne xare boobu de ki koy gagné mooy kii njëkk ci barabu Mame Mandir Fa Boye koo xam ne daal njëkk nga ko fexe ba mu féete la gannaaw ki ngay jàkkaar lool waxtu wu tiiree takk te xam nga ñoom ñaar dañuy ay yu jege. wax nañ ne xare bi fii lañ ko tegge woon ci Yacine da France bi di jàkkaarloo Birima ànd naag mbooloo mu bari waaye ci Yacine da koo dàq dàq gu méttee méttee métti fee ci xasar na moo tax sax wax bi di waan xasar na taal nañ ko ay goro faatu ngir Birima yi bañ dàq naa la ci Yacine tax na keroog ay goro tuuy kon xare boobu fii lañ ko teggee woon barab bi daal barabu leer la barabu waay la ginnaaw loolu it ay nit ñu baax ay nit ñu tedd dëkk tëdd nañ fi ñu sant Kunta naka noonu mbir bu faal farbat xam ngeen ne fii la tëdd da wax nañ ne tegtal bi ko sëriñ bi joxoon bi mu bàyyi ko sëriñ Tuubaa ci njaareem moo ko xamal ne ko waxtu woo xamee ne génn nga suufu si njaareem mbuuso mooy barab ba kon mooy fa lañ ko denc naka noonu suñu jàmbaar ji ci li gën a siiw 14 wala 13 xam naa 14 la ñuy jàpp boobu it mi ngi ñaar fukki at ak juróom ñaar fukki at ak juróom benn jàpp ñaar fukki at ak juróom wax moom it xam ngeen ne fii la tëdd barabam mi ngi nii ñu jàkkaar lool moom it wax dëgg di barabam ñaanukaay barkeel di barabam gëneel di barab boo xam ne nii wax nañ ne képp koo xam ne tëdd nañ fi tëdd nga fi suñu borom daal defal loo xam ne nii yaakaar naa a ah, dana rëy lool ndax ak njëggal mi ngi fi naka noonu it yërmande mi ngi fi naka noonu it àjjana ju leer yaakaar nañ ko ci barab bii kon nag yàlla nañ ko suñu borom defal ci barke Sëriñ Tuubaa loolu moo doon kaddu di wax ne fii daal suufu su barke la suufu su la suuf la soo xam ne kenn mosu fee jaamu xaram ndaka jekk ay daar lañ xaman jàngale ak liggéey moo tax ñu ne maam Madina mi ko sanc sax day mel ni da koo sancan ci jàjju ba jàjju boo mooy julli ak bay ak maanaam euh, euh, julli ak ak ak ak ak jàng ak bay ci loolu ko julli ak jàng ak bay day mel ni ci la ko sant woon loolu it mos fee jug. barab bii ñu téem nii mooy barabu euh, Cheikh Babacar Sadikh Ndir di borom bis bii nga xam ne nii moom la ñuy tey mi ngi gën a jamono ci 1888 mi ngi fi bàyyi ko 1963. moo wuyu woon sëñ moom la sëñ bi woowan ngir di ko jox batale boo xam ne nii maamam Mandir Fa Boy moo ko joxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam te loolu mooy lii li ñu nett li ci mag ñi jëlee ko ci mag ñi ñu ne bi mu jàkkaaroo sëñ Tuubaa bi mu ba gis ko sëñ bi da koo laaj ndax xam nga sa maam ñu waxee la ñuy waxante nag la yëkkati la muy yëkkati ne ko lii kat ab batale boo batale boo xam ne sa maam moo ko joxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jox ma ko ne ma yaay dajeeg sët bi nga xamee moom moom batale batale lii te mooy sëñ baaba moom it bi mu wujjee sëñ Tuubaa ba ñëw xam nga ne bi muy dem ñaari bant la am muy sëñ Sidi sëñ Sidi mi mu tuddee Sidi Mokhtar Kountiou mu mag ma ak euh, Baye Serigne Ami Dieng mi mu tuddee waajuram bi mu ñëwaatee ki mu amaat moom moo tëdd nii ñu wuufal ko ko muy sëñ tubaa Ndiir bi mu mujjee sëñ Touba ba ñëw wax nañ ne Baye Touba mi moom la amaat tuddee ko sëñ Touba kon day mel ni sëñ Baba tuddee na Serigne Touba ñaari doom ñuy sëñ Touba Ndiir ak Modou Mbacke Ndiir bi fi nekk ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool naka noonu ñi nga xam ne jiitu nañ tamit ñu ngi ñaan yàlla mu yokk seen leer ñi fi des it muy sëñ Modou xalifa bi ak sëñ Basiru ak sëñ Muudu ak Baay Buuna ak njaboot yëpp ñu ngi ñaan yàlla yàggaleen fi lool ci barke sëñ Tuubaa ba tey ñu ngi nii ci barabu maam Mandir Faboy Mandir Faboy nag xëy na buñ ko déggee Faboy ji da leen ci xaw a jaaxal waaye dañuy wax ne Faboy Mbóoj mooy waajuram bu jigéen doonoon doomu Yirim Bakar muy quatrième barak bu Waalo mooy waajuram moo tax ñu koy dàkkantale Faboy Mbóoj waaye Mohamed Ndiir la tudd moom lañ xam ci ki njëkk sant Ndiir fii ci Sénégal ay maamam di Abdoulaye Sarif ak ma Maxtaar xam nga ne sant ñoon diir ndax bi ñu dugg fii booba biñ ñëwee lañ xam ne nag fii ñu dugg dafa am aada ñuy ami sant lu tax te wax nañ ne bi muy dugg ñaxum ndiiraan gi mu ràbbat ngir jéggi dexu jub googu loola waral ñu santale ko ndiir xam naa di ngeen dégg sax ñuy wax way woowu ñu wax naan xalaa mandiir bàjjo xalaa xalaa doo fi jaar mu mel ni bi mu bëggee jéggi te naare gis njariñ la nga xam ne amal na leen ko te bëgguñ mu jàll ñu wan ko daal jàll yi jàllale ci biir dex gi daal wala géej gi day mel daal euh, mëntuñoo dem wax nañ ne booba dafa wutan ñax ak ndiiraan ñax googu ndiiraan la moom la defaraan rek daal ciy jéggi moom doomam bu fekkee am nañu mu àndal it mu ànd ñoom loolu nag day day lu yàgg. te histoire am dañuy wax lay sa taarixu kama kaana léegi léegi ñi ñuy nettalee dëgg dëgg dëgg dëgg ñii dañuy woote ci ak nettali waaye loolu lépp nag dañuy wax ne ixtilaaful ulama rahma kon ba tey Mandir Fa booy moom na tëdd moo tëdd fii moom nag moo santoon dëkk bi ci 702 li gën a siiw mooy 702 ñu ufal ko ay sëtam muy maam Samba Maguette ak maam maxtaar Maguette ñoom it wax dëgg yàlla ñoom lañu wufal ci ginnaawam bokk ci ak njabootam Mandir faa Boye nag nekk nit ku baax di wàlliw bu mag di boroomi jaloore ni ma ko waxan rek bi muy sanc ci dëkk bi booba ab càkkaar rek la yoroon waaye ndox mosu caa dugg aw naa ji daaw fa dugg